jàmm waxtu ba ñu bàyyeekoo di waxtu yu guddi lépp luñ fa njëriñu ci xeetu xéewal moom yàlla moo ñu ko wërsëgal kon bëccëg ba ñuy waaja suubu ni lépp luñ ci war a mën a njëriñu kom xéewal moom buur yàlla tabaaraka wa moo ko yore ñu di ko ñaan yal nañu yàlla may kendaluk jàmm mbokk yi yal jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yéen a ngi fàttale ko keroog bañ doon tàqale kook yéen ñu ngi taxawoon ak yéen lenn ci xéewalu yàlla buur bi tabaraka wa taala la mu wërsëgal doomu aadama bi mu doon xéewal yi nga xamante ne bu dee doomu aadama bi da koy bàyyi xel kon dinga gis ne yàlla bi léegi da koy fàttalikuloo ne ko man yàlla may buur bala yenkeewal bala wërsëgal xéwal ya nga nekkee nii ba tax na bu ñu demee xool ci suratul ibrahim dinañ fa fekk ci aaya fanweerelu aaya ba fanweerelu aaya ak ñeent aaya 30 bi aaya bur yàlla mu ngi nii di fàttali doomu aadama bi ngir mu fàttale ku ne bépp xéewal ba mu am xanaa du yàlla moo ko ko yënkeewal ba tax na sama boroom subhaanahu wa nee na yow sama ndaw yow sama yenant bi kaay dem wax sama jaam yi gëm yàlla yàlla buur bi tabaraka wa dafa tànn jaamam yi ko gëm wiital ko ci nekkinam ak ci melokaanam ba tax mu tabal leen garaadu iman buur yàlla ne yonent bi ne xul waxal partagel na nga yóbbul la nga xamante ne moom la la bëgg a jox nii mu ne ko xul waxal li ibaadiya diina amanu ci sama jaam yi nga xamante ne ñoo ma gëm ñu wiital ma sama nekkin bokkaale wu ñu mag dara bokkalewuñu mag leen la ma leen bëgg wax nii ngir nga jottali leen ma ko mooy yuqiimu salaata nañu taxawal julli forma julli noddu ci la nañ ko bàyyi xel forma julli jàkk ci la nañ ko bàyyi xel forma julli toroxloog suufil sa bopp wàccee sa bopp xerewlu ak toroxlu ba fa nekk boo génnee ci biti julli nanga ko dunde nii moo tax mu ne ko qul waxal li ibaadiya alladina amanu ñeel sama jaam yama gëm ñu wéetal ma bokkaale wuñu mag dara yuqimu salaata nañu taxawal julli wa yunfiqu nañu financé nañu dépensoo mimma ci li nga xamante ne razaqnaahum wërsëgal naa leen ko sirlan moo xam ci lu nëbb lañ koy financé bëgg naa wa alaaniyatan moo xam ci lu feeñ lañ koy financé bëgg naa jëlal astuut li la yàlla wërsëgal nga financé ko ci projet diini yàlla ne boo ko defee ci lu nëbb bëgg naa ndax xam naa ka boo ko defee ci lu feeñ bëgg naa ndax xam naa ka jëlal astuut la la yàlla dënk nga financé jeune frère xale bu góor ba nekk ci digg dooleem mu bëgg progresser mu bëgg a yaxanal la mu yore jëlal sa alal nga comp si tuuti financer ko secrètement bu ko kenn yëg te nga di ko accompagner yàlla ne képp ku def li bëgg naa waaye képp ko financé xale bu jigéen ba nga xamante ne dafa tegu ci yoon daa bëgg progressé ci dundam nga financé ko ci lu nit ñi di yëg tamit bi léegi bëgg naa waaw képp ku dimbale nit ci lu nëbb yàlla ne gis naa la xam naa ko bëgg naa waaye képp ku dimbali nit tamit ci lu fés ci lu feeñ yàlla ne yëg naa ko xam naa ko ba léegi bëgg naa nekkee leen nii doxalee leen nii min qabli an yaatiya yowman laa bayun fiihi wala xilaal lu jiitu bés di leen dikkee bés bi nga xamante ne jënd njaay du leen njëriñ dara maye sa alal du la njëriñ dara partager sa alal du la njëriñ dara ndax xam nga ni moment boobu nekkoo xam nga ni moment boobu dara baaxul xam nga ne moment boobu amul dara la njëriñ oto bi nga doon dawal dootoo ko dawal ndax tànk ba koy dawal nekku fi xel ba koy contrôler nekku fi loxo yay téye walaam bi nekku fi loxo yay xëcc frein beeg bu de vitesse bi nekkatu fi ngal la waay na ngeen jëflanteeg nit ñi nu mu gën a jekke balaa bés di leen dikkee bés bi nga xamante ne jaay ak jënd amatu fa amul dara lay njëriñ nit ki lu dul li nga jiital buur yàlla tabaaraka ko taala ne man yàlla bokk na ci li ma leen wursigal ma xéewalal leen ko ma tàggatalal leen ko kon nañ leen déglu nañ leen bokk déglu alquran suratul ibrahim la yàlla ne moo ñu ko wërsëgal te moo ñu ko tàggatal lii ku dut yàlla kenn mënuñu ko tàggatal jalla waala moo tax bur yàlla ne allahu yàlla yàlla daldi jëfandikoo fii ismul jalaal mu ne allahu yàlla mooy buur wi nga xamante ne xalaqa mooy bind allahu yàlla allidi mooy buur bi nga xamante ne xalaqa samawaati moo leen bindal juróom-ñaari asamaan bu ne nongu ci kaw wal ard moo leen bindal suuf bu ne ñereet ci ni mu nekkee nii wa anzala mooy buur bi nga xamante ne mooy wàcce mi na sama i ci kaw asamaan si maa an ab ndox bi nga xamante ne fa axraja bihi mina thamaraati risqan lakum mu di génnee meññeef bi nga xamante ne day doon wërsëg ñeel leen mbokk yi fii ñu sant saane ñu santa maane ak jiite wala jaxate tuure siise aaya bi fii moom daleen di neex lool waaw fa axraja bihi samaraati athamaraati la ko mu di génnee meññeef bi nga xamante ne ay fruit la ak li moo xam lu ñu bey la moo xam lu ñu ji la moo xam garab bu gudd la wala garab bu gàtt bi en tout cas bépp meññeef bi nga xamante ne doomu aadama dina ko njëriñoo yàlla ne may taw ndox boo xamante ne meññeef boobu ci lay balee ci lay meññee risqan lakum loolu yépp mu doon wërsëg ba ma leen wërsëg yéen doomu aadama yi wërsëg la ñeel leen yéen doomu aadama yi bokk na li ma leen tàggatal mooy wa saxara lakum man yàlla maa leen tàggatal al fulka ay bato ay gaal gaalu looco ci la bato yi ci lañu bato yi yëpp ay kër cargo di xuus ci duusu géej gi jóge ko asi jóge ko Amérique jóge ko fu leen neex ci àddina si ñu di xuusandeg bato yooyu ak marchandise yamu yëpp ay conteneur yu yu yëpp ay marchandise bato bi di xuus ci duusu géej gi gandaxu géej gi di ko laal di ko bëgg a ëlbëti waaye yàlla ne li tajiri fil ngir muy xuus di daw ci duusu géej yi bi amrihi nag kon ci ndigalu yàlla de du capitaine bi de du commandant bi de du ingénieur bi de du scientifique bi de déedéet yàlla ne bi amrihi ci sama ndigal waaw loolu yëpp pour doomu aadama mun a am la muy njëriñu imagineel nga jënd say marchandise financé say million wala iyaasu billah ñu jox la benn annonce ñu ne la bato bi yàlla dogal na def na nii xoolal tristesse bi ngay dund xoolal naqar bi ngay dund ci sa biir xol yàlla ne nag ndegam ci sama ndigal ca la bato bi di jóge ko fañ ko sarse ci ajak-jak muy xuusandi géej gi di xuus di xuus duusu géej gi di ko bëgg mëdd waaye yàlla di jëfandikoo yirmande bañ a tas yaakaaru doomu aadam yi bi amrihi ci ndigalam la boto bi di dawee kon wa saxara lakum yàlla ne bi léegi maa leen wërsëgal al xaar ay dex dex yooyu bokk na suñu réew dex bu ñu yàlla wërsëgal Lac de Guiers bi nga xamante ne fala société bi ŋànk wàllum ndox mi fala ñuy tànqee falañ koy muucoo ak yeneen dex yi nga xamante ne siwul wala bu siwee tamit ñun Lac de Guiers xam ca fa mu nekk ci béréb boobee société yu ngànk wàllum ndox ñoom di si tànqee ndox ngir ñu di ko jottali askan bi yan na leen yàlla sàmm waaye ka andi loolu foofu ku ko fa installé du scientifique du kenn yàlla moo ñu wërsëgal Lac de Guiers boo xamante ne ah mbokk yi alhamdulillah nañ leen bokk sant yàlla nañ sant yàlla yàlla dafa bugg saasu ne jaamam di manifester mandarga yi xéewal yam ko defal buur yàlla ne bi léegi man yàlla maa leen wërsëgal la nga xamante ne mooy al anhaar ay maa leen tàggatal al anhaar ay dex yi nga xamante ne fa ngeen di jëfandikoo am na dex yoo xamante ne foofu moom ndox bi day walwali rek waaw ndox bi day walwali di dem waaw boo demee xool ko filmer ko nga xool ndox bi nu muy demee ak pression bu muy àndal ah di nga xam ne ku dut yàlla amul kenn ku mun a def lii fii yàlla ne man la de maa leen ko defal noonu de maa leen ko installé foofu waaw wa saxara lakum ba léegi buur yàlla di wax doomu aadama bi mu ne ko maala la tàggatal a chamsa appareil mbindaafoon kilimaam ba ñu naan jant bi jant bi képp ku yore montor ci kanam tuuti rek dinañu gis ginnaaw yàlla wërsëgal nañu julli nañu fajar su ko defee yàlla wërsëgal nañu waxtaan bi temps lay demee su ko defee yàlla wërsëgal nañu après waxtaan bi am na leneen lu siy topp noonu la jant bi temps bi di déroulé bi keroog muy fenk bu fenkee tamit kenn ku nekk am na ci li ngay géem góor góorlu di xëy di dem kër kër ngir mun a fàggu sa dund kon ak ferñeent yay génnee ci jant bi waaw ñay liggéey ci panneau solaire ñoom ñu di si war a mën a njariñu ak yeneen yu xeetoo nii lépp loo xamante ne jant bi amal na ko doomu aadama bi comme njariñ yàlla ne jant boobu maa la ko tàggatal bu dee yàgg scientifique rek lañu mënuñoo créer jant ba ñu di la ko àndil nga di ko bénéficier wu bu dee yàgg bu xaabay rek lañu mënuñoo créer jant bi ba ñu di la ko tàggatal nga di ko njëriñoo bu dee ki yàq maaxam xam yi la wala yeneen yi ni mel dama ne mënuñoo créer jant bi ñu di la ko andil nga di ko bénéficier wu kon yàlla mi ne la wa saxara lakumu shamsa man mi la créel jant tàggatal la ko nga di ko bénéfice booy ñaan ñaan ma booy sukkandiku na nga sukkandiku ci man booy muslu na nga ci man maa yore lépp ñi ngay bàkkoo ñi bëgg a dox ci sa mayen bëgg naan sa yuur bëgg laa nax ci sa alal ba nga yore yoruñu tóos duñu dara la yore ci sama coobare lañ ko amee waaye man maa fi nekk di yàlla waaw ndax tànk bi ngay dox di jëm si ñoom maa la ko branché lu tax ñoom defalu la tànk ba ngay ñëwee ci ñoom xam nga am na loo xamante ne alquran dafa ñëw pour mu leeral xelu nit ñi leeral na ko sax gumba gumbalug beeg maa tey beeg ñàkk xam ak bañ a xam moo fi nekk yàlla ñu yàlla xiir ci boppam yàlla ne wa saxara lakum moom mooy buur ba leen tàggatal ak shamsa jënt bi nga xamante ni dafa am relation ak seeni doxalinu àddina dafa am relation ak seeni dund faf wal xamara yàlla nee na may ki leen géema maa nekk ki leen créel li nga xamante ne mooy weer wi weer bi nga xamante ne bu dee danga liggéey ci jamono ba jënt bi di déroulé mu nekk temps la ngay liggéey boo cumuler bés boo bëgg heure yooyu noonu yëpp moment bi ñu toll nii weer bi dee na ca ngay dem tàllal sa loxo wala ngay espérer dinañ ma fay kon liggéey ba ngay liggéey ci moment ba jant bi di dérouler yàlla moo la tàggatal jant boobu composé ko par rapport ak na nga war a mën a taxawee ci sa dundin kon bu weer deeyee weer boobu noonu la ñuy cumuler ñaata fan nga liggéey ci doxalinu jant bi ñu méngole ko fan yi nga xamante ne moom la weer bi leb walla moom la weer wi lem ñu fay la ko gannaaw bu ngeen jubboo ci kàddu ci peero bi nu muy demee kon ana kan ko andi ñaari appareil fii doo ma ne scientifique yi ñoo ko fi andi de doo ma ne eh, yi ñoo ko fi andi de déedéet doo ma ne buxaaba yi ñoo créé ñaari appareil de déedéet kon yàlla bu ne ñu wa saxara lakum shamsa wal qamar daa ibayn man yàlla maa ki leen créel wërsëgal leen tàggatal leen ñaari appareil ya tudd shamsa di jant bi mu am relation ak seeni dund wal qamara ak weer bi nga xamante ne moom dafa am relation ak seeni dundin yàlla buur bi ne ñu daa ibayni ñu doon ñaari mbindaafoon yi nga xamante ne ci seen service lañuy ñuy ci seen service lañu fi nekke wa saxara yàlla ne léegi may buur ba leen tàggatal al layla climat bu ngi naan guddi waxtu bu ñu jógee ci waxtu su néew ba ñu nekkoon dallu bañ fa nekkoon ngelaw bu fiix ak climat bu lëndëm ak istiqraar ak itma ba fa nekkoon dal ak stabilité ba fa nekkoon soxna mari bu dee baat yi noonu laa koy waxee ci nasaraan bu dee jub na alhamdulillah kon bu dee jubut ñu ngi sàkku njégalu ci taalibe nasaraan yi waaye sama professeur bi daal nii la ma ko waxee yàlla ne istiqraar ak itma na bu nekk ci climat boobu ñu naan guddi anakan moo leen ko mën a installer kenn doo ma ne gaay la de doo ma ne la wala philosophe wala buxaaba wala gisaanekat mënuñu ko xamuñu ko sax ba ñu koy installé kon ana lan moo tax nga bàyyi fi ki la installé lii mu la wax nii nga ne dangay dem ci ñi nga xamante ne xamuñu mënuñu la ñu yore du lenn lu dul jëflante ba ñuy jëflanteeg seytaan ana lan moo lay waral yow jullit bi ngay am relation ak ñee kon yàlla buur bi tabaraka wa taala ñu ne wa saxara lakumul la wan nahaar man yàlla maa leen installé maa leen tàggatal climat bu ñu naan guddi ngeen di ci dallu ak lafa nekk ci xeetu xéewal wan naxaar yàlla ne maa leen tàggatal bitig bi nga xamante ne jant bi danaan fang jant bi da danaan tey seen kaw su ko defee ngeen am éclairage bu toll ni képp ku ko mën a bénéficier wu dina ko bénéficier wu fii def ne chams jant bi ak nu muy doxee fii mu ne wal xamar ak weer bi na muy doxee fii mu ne àlleyli mu doon climat bu lëndëm mu doon climat pour nelaw pour dallu noppaleku fii mu naan wan naxaar mu doon climat ba ñu naan bëccëg mu doon jamono yi kirkiri jamono yu dugg ka génn ci kanam tuuti borom oto yi dinañu taal seen oto circulation bi bouger fa ñuy dem ilal shughul aw ilal amal allahu akbar waaw bitig bi jant bi commencé na fenk raj-raj loo beeg embouteillage beeg dimma ko dikki beeg pollution beeg corne beeg nit yaa ngi dimma ko ñëw moo ne lu xew ñu ne jant bi moo fenk waaw lu après parce que nit ñi dañu dem dañu war a dem ulti seeni wërsëg allahu akbar ana ku leen kéréel jant boobu fenk ba raj-raj loo ba ñu gis mu nekkee ni yàlla yàlla ne kon ndege maa leen tàggatal li ma li ma nii yëpp ah des na de jeexul de ak lan yàlla yàlla ne wa aataakum maa leen jox min kulli ma saaltumu lépp la ngeen ko ñaan jox naa leen ko lépp li ngeen ma ñaan man yàlla may naa ko jox naa leen ko walla ñaan ngeen ma lépp li ngeen soxal jox naa leen ko xataa jox naa leen sax li ngeen ma ñaanu te xam naa ne loolu la leen amal solo la may naa leen ko jox naa leen ko waaye nag li fi nekk mooy wa in tauddu nicmatallahi bu dee nekk fi di gémma lim xéewalu yàlla yi laa tuxsuuha du ngeen ko musa dajal du ngeen ko musa matal waaye li fi nekk mooy innal insaana doomu aadama de la zalumun kaffaar daldi kuy dëkkee di tooñ boppam waaye doomu aadama bi de daldi jëmma joo xamante ne daa dëkkee di weddi xéewalu yàlla yi mbokk yi aaya bi buñ ci taxawee narsee def taaliqaat dinañ gis ne fii borom bi tabaraka wa taala mu ngi ñuy mooy ku ñu tàggatal lam ñu bëgg a wax nii walla lam ñu wax nii ci ginnaaw bur yàlla mooy ku ñu tàggatal lépp li nga xamante ne mooy xiiwal yum lu limal nii buur yàlla mooy ki ñuy wàccel ndox ci asamaan buur yàlla mooy kiy meññeel meññee gannaaw bu ndoxu asamaan bi tawe buur yàlla mooy ki ñu andil wërsëg ju toll ni ñuy jëfandikoo meññeef jooju xeetu furi yi nga xamante ne dinañ ko dugal ci ay conteneur di ko leen jaay bitim réew boo demee suñu dëkk bi fii côté sud di nga gis ay mango yoo xamante ne jarul sax ngay yéeg waaw dangay taxaw xëcc ay conteneur ak ay kamiyon ñooy dugg ci tool yi di ko witt ak feneen ak feneen ak feneen fu mel ni puut fu mel ni tool ya nekk foofu yëpp yàlla suñu boroom tabaaraka wa taala nee na mooy buur bi nga xamante ne moo ñu wàcceel ndoxu taw ngir mu di ñu meññal suñuy gàncax yi nga xamante ne bay nañ ko muy béy bu gàtt wala béy bu digg dóomu wala béy bu gudd bi banaana ci la xaal ci la mu nekk loo xamante ne saison bu jaar am beneen bu ñëwaat ak li muy andiwaale mais loolu noonu anakan moo ñu ko tàggatal ku dut yàlla buur bi tabaraka wa taala mun nañu maa leen tàggatal gaal ay bato yay xuus ci duusu géej yi ci sama ndigal ba léegi maa leen tàggatal ay sew sewnde ay bëtu ndox ay dex yi nga xamante ne ñii dañ siy fuut boo demee fuuta nga di gis ay dex yu rafet boo demee côté Tamba nga di fa gis ay dex yu nice boo duggee si documentaire commentaire yi documentaire yi boo ci duggee nga gis ay dex yu rafet ay dex yoo xamante ne lépp lu fay balle ci ndox kenn xamul fu muy jógee fu muy jëm léegi-léegi nga gis ay montagne yu nga xamante ni ci kaw a kaw kaw a la ndox bi di sottee ko ci suuf mu nekk benn piscine bi nga xamante ne macha allah boo gisee ndox bi nu muy sóoboo nu muy wàccee mu nekk ay image yu rafet ci but dex yooyu ku ko ana ku ko fa teg yàlla léegi-léegi nga xool documentaire gis ay mala yi nga xamante ne dañuy traverser ay dex yi nga xamante ne ndeysaan rahimahumullah ay jisit ñooy nekk ci biir ndax boobu waaw bu ñuy traversé foofu yàlla créé leen dex ngir ñu naan waaye nag am na yenn rab yu leen ëpp doole ñoom it fa la ñuy dundee su ko defee yàlla di leen ci wërsëgal léegi-léegi nga gis documentaire yooyu ci ci ci ci image sa sa yaram day daw wallahi waaw amul kenn ku leen sàmm waaw till yi di leen padd fee ah njaay àll yi di leen padd fee gaynde yi di leen padd fee segg yi di leen padd fee ñu nekk ay kiwil yu am jëmm macha allah voilà wala ñu nekk ay rabu àll yoo xamante ne maanaam yàlla moo leen dëkkal noonu foofu waaw ñoom daal noonu la ñuy dëkkee loolu yëpp yàlla nee na yow doomu aadama maa la wërsëgal loolu ñu nit mu wërsëgal ñoo Lac de waaw société bu seytu wàllum ndox ñoom it ñu di si béy seen waar ñu di si góorgóorlu Sénégal parti yu bari ñu di si am ndox bu ñuy jëfandikoo yeneen nañ yàlla suqali amin ya rabbal alamin yàlla yàlla ñu bi léegi wa saxara lakum moo leen tàggatal moo leen xéwalal moo leen créel jant bi nga xamante ne dafa am eh, relation ak seeni dund ci mboolem jëfandikukaay la ngeen di jëfandikoo waxtu bi nga xamante ne jënt bi moo koy doxal wal qamar yàlla nee na bi léegi bokk na li ma leen li ma leen tàggatal mooy weer wi nga xamante ne lépp li nga jëfandikoo ci jamonoy doxalinu jant bi résultat bi yaa ngi koy góobee ci doxalinu weer bi lépp li nga jëfandikoo ci doxalinu jant bi yàlla nee na maa la tàggatal weer wi nga xamante ne fan yooyu nga liggéey ci doxalinu jant bi te fan yooyu la weer bi di lem bu ko lemee ba mu mat fan yi nga xamante ne doxalinu jant bi moo tax wolof di wax fanu weer fan yi nga xamante ne moom la weer bi doon doxe mat na waaw mooy la nasaraan bi du tuddee trent waaw waaw ñaar fukk ak juróom-ñeent waaw ñaar fukk ak juróom-ñeent bu fa àggee mooy vingt bu àggee trente ñu ne mooy fanweer waaw mooy fanweer yàlla nee na ñaari appareil ya ma leen fi joxoñal nii jënt bekk weer bi daa i bay ni ay mbind afoon lañu ñaari mbind afoon lañu ñi nga xamante ne ci service doomu aadama la ñuy doxee bur yàlla ne wa saxara lakum maa leen wër sëgal al layla kilimaan bu ñu naan guddi guddi lafay fay xew la nekk istixraar yafa nit ñi di am stable yafa nit di am itmaana na fa nit ñi di am tranquillité yafa nit ñi di am amul kenn ka mën installe lii ku dut yàlla wan naxaar nee na maa leen kéréyal bëccëg bëccëg bi nga xamante ne yàlla mu ñuy wax wa ja'alnaa leyla libaasan maa leen defal guddi mu doon mbàjj ba ngeen di dugg ngeen ngeen suturlu fa wa ja'alna nahaara ma'ashan maa leen defal bëccëg mu doon waxtu bi nga xamante ne ca ngeen di génnee dem kirkiri dem xool la ngeen di faagu ngir ngeen dundee ko ci kanam tuuti raj-rajloo bi ci tali bi am butiyaas beeg dem ak dikk bi moo ne lu xew jant bi mooy waaj a fenk et après moo tax ñëpp di raj-rajloo ñii bañ a tardé dem école ñii bañ a tardé ci liggéeyukaay ba ñii bañ a tardé fu ñuy jëm moo waral raj-raj loo bi moo ne lu xew temps bi lay njëkkalante ñu ngi naan allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fi l alamina innaka hamidun majid mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min alladina yastamiuna alqawla fa yattabi'uuna ahsanahu allahuma aminna fi awtaanina allahuma aati nufuusanaa taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha allahuma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatina wa wulaata umuurina baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani al'aziim wa nafaani illahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli zamin fastaghfiruhu innahu huwa al ghafuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu